alo asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu maa leen di oo man alaaji Ibrahima Sall ndaxte dama am information yu importante covid bi variant bu bees bi gën a dangereux bi nga xam ne doo sa doo def dara dalay attaque directement su poumon non seulement mi ngi Sénégal mais fees na fi del et que toutes les salles de réanimation sont pleines amatul nii dans les cliniques privées ni dans les cliniques publiques ni dans les hôpitaux donc amatul fenn réanimation yëpp occupé nañu bu yeboon nag ngeen def prévention tëj seen kër bàyyi dajaloo yi et éviter lépp parce que affaire bi mu ngi wallaate et réanimation amatul place ça veut dire que mais képp ku mu dal maradimi si eh, yaa ngi si loxo yàlla